Assalamu alaikum samagai, bienvenue sur CTGHT. Samagai, tay mo kon bisu Samsung Galaxy Unpack. Et bu leen déggee bisu Samsung Galaxy Unpack jàppale ni bis boobu noonu duma nelaw tànk defuma benn vidéo boo xam te ni dina leen expliquer samay abonné en wolof lepp li nga xamanteni ni Samsung waxnako ci conférence bi parce que conférence bi c'est en anglais bo leen gisee moo tax ma def ay liens sama réseaux sociaux duma ma def len pour wax len ngeen dem sétane ko parce que c'est pas évident ngeen sétane vidéo une heure de temps en anglais ñu les présenter bien produit bo xamanteni lepp lu leen ci wax xaaj gi xamoo ci dara donc motax vidéo bi ma def parce que ñu bëri seen dañuy bëgg suivre conférence bi mais mun ñuko suivre et pour ñooñu motax et bu fekké ni yow da ngay door découvrir sama chaîne dama lay wax juste nga abonné wu itam nga ba cloche de notification bi pour bañ raté vidéo yi di waaj ñëw parce que produit yi nga xam Samsung présenté na tay ci Samsung Unpacked bi Samsung Galaxy S22 S22 plus S22 Ultra ak Samsung Galaxy Tab S8 S8 plus S8 Ultra bu nekk incha cette année ci dina ci def ben vidéo et c'est pas des peut-être dina ci def vidéo donc pour bañ a rater vidéo yoy non abonné wu tam nga la ci cloche de notification bi et légui ñu sur le Samsung Unpacked 2022 mais en wolof version cité j'ai acheté quoi y a gën a xam. waaw fogg ma xoolaat ka pour mën len defal vidéo bi. so sama gars yi balaa ñuy sori dama len di wax juste information yi nga xamanteni ni len ci wax ci bi vidéo bi dama ko jëlé directement si vidéo Samsung Galaxy Unpack bi lepp lu mu ci wax mom la len di nettaliwaat ni ci biir vidéo bi d'accord yokuma ci len wàññu ma ci peut-être aussi des fois ma wax ci joxe sama avis ci benn point mais lépp lu mën ci wax loolu la Samsung wax ci Unpacked bi et fu ñuy commencer mooy fu mu ko commencer exactement présenter ñu portable yi Samsung Galaxy S22 ak S22 plus yi nga xam te ñoo portable Samsung Galaxy s 20 ak s 20 plus donc déjà euh, dama am leen loo xam te dama nekk wax niveau design même chose nañ am niveau design même chose lol mon le design de l'année Samsung Galaxy S21 bi et ñu aussi S22 pourquoi pas changer une équipe qui gagne voilà Sénégal champion d'Afrique mais sama gars design S21 et S22 il y a quelques différences parce que Samsung Galaxy S22 c'est un design carré tranchant Samsung jëlul juste copier pour coller mais idée générale bi c'est la même chose Vous le Samsung Galaxy S21 r S22 dina la trop donc sama gars euh, Samsung Galaxy S22 S22 plus ak S22 Ultra Samsung cette année ci même matériaux les utiliser utilisé avec S21 bu amone daw daaw bi nga xamante dafa melni comme hors gamme parce que Dolby c'était en plastique, c'était pas même matériel. Mais si S22 Samsung deful benn discrimination S22 est ñoo yem même matériaux yu ñu leen Gorilla Glass Victus Plus ak euh, matériaux dafti en aluminium de haute qualité bi nga xam S21 S22 Ultra bi moom la Samsung Galaxy donc ce noonu dafa nekk benn point bi nga xam te lu am importance et lu am solo ren niveau design soit dans ngay jël bu mag wala bu mais même qualité entre Samsung Galaxy S22 et S22 Plus avons 200 dollars de différence ci le prix donc sûrement Samsung def na un compromis mais compromis yi ci compromis pour maintenir une expérience utilisateur déjà compromis bu que mon euh, c'est obligé un taille déjà bi taille de 6,1 pouces bi taille de 6,6 pouces mais benen bi ñi ngi am écran bu Full HD plus si S22 bi franchement écran bu Full HD 120 Hz, c'est adaptatif ba 10 Hz. si écran est 6,1 pouces le c'est plus que assez dafa ëpp doy daa compris donc sama gars dama bëgg juste ngeen xamni loolu ce sont juste des chiffres mais expérience bi beaucoup koy utiliser loolu yëpp da koy fàtte parce que c'est tellement bien intégré par Samsung S22 ak S22 le fait que c'est un écran di rafraîchir manam adaptativement manam di adapté bu fekké ni da ngay utiliser lo xamante euh, dafa soxla 120 Hz hertz mu daw 120 Hz bu fekké ni da ngay sétane film wala ngay lire ben page web wala ngay def len lo xamante soxlawul auto de rafraîchissement fay wàcc ba 10 Hz et da fay tax sa autonomie portable meuna dem lu gëna yag et bu ñuy wax ci autonomie Samsung Galaxy S22 bi ñi ngi am batterie bu 3700 mAh, Samsung Galaxy S22 plus ñi ngi am batterie bu quatre Samsung a point compromis mon caméra entre Samsung Galaxy S22 et S22 Plus même combinaison caméra am grand angle de 50 mégapixels benn ultra grand angle de 12 mégapixels ak un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom x3 même combinaison caméra avec 50 euh, mégapixels bi 36 grand angle la neck et loolu c'est très intéressant parce que Samsung dafa indi juste pour gëna mëna améliorer photo yi en basse luminosité ak surtout euh, technologie yu indi manam pixel binning gis ngeen gis ren Samsung dafa jël benn décision bu strict pour gëna a performance yi nga xamanteni mom déjà ci marché bi raw ñu bëri en mode nuit photo portrait mais ren dafa ñëw ci euh, présentation bi dafa wax lu c'est quoi ton photo nuit portrait nuit ak vidéo de nuit bo dem ba tuddee ko luñ koy woowee nuitographie donc ren mom xamna mom photo nuit mom lim à ñu wanagum si avant goût c'est présentation bi on l'a pas encore en vrai mais à ñu wanagum c'est présentation bi ça promet vraiment Et blanc ça promet même avec selfie bi nga 10 mégapixels la Samsung Galaxy S22 Samsung mom il promet même qualité euh, photo même en nuit ren Samsung misé sur si mégapixels Si boo téléphone ben, on a un ultra grand angle de 12 mégapixels qui l'objectif 10 mégapixels mais dafa faut a miser si un pixel binning bu muy def yooyu dinaa ci gën a vous dafa xaw technique tout. léegi sama gars yi ñu door wax ci portable bi nga xamante ni moom moo smartphone base nouvelle smartphone flagship mon Samsung Galaxy S22 ultra portable bi nga xamante portable bu gëna badass bi nga actuellement portable bu plus puissant bi Samsung di jay actuellement moy Samsung Galaxy S22 ultra et franchement sama gars yi ñu seen bu ñu portable bi cher li A32 C'est sama gars li de A32 bu non bu leen débat li A32 parce que déjà A32 a 108 mégapixels grand angle A32 a 12 mégapixels ultra grand angle A22 amul. 10 mégapixels avec zoom optique x 10 de téléobjectif amul un deuxième téléobjectif pour maintenir zoom optique x 3 la amul ça juste un capteur laser loo xamante juste pour autofocus sama gars yi lii A32 même si fekkee ni mën nañu wax ni nduru trop A32 mais du A32 pour moi, c'est plutôt de mélange u Note 20 à 32 avec s 20 Ouais, mën nañu wax boo leen Samsung Galaxy S22 Ultra et franchement il est pas mal hein. léegi nag euh, design bi mën nañ wax design bi dalay neex wala les mais franchement man d'après sama expérience Samsung Galaxy S21 Ultra bi design dafa rafet trop trop parce que S21 Ultra laa déjà dafa rafet ba nga xamante ni du ma ko dugal ci protection juste pour wan à quel point portable design daf ma et c'est très difficile Samsung un design bu ko mais actuellement ni design S22 bi. Euh, duma ci wax dara parce que d'après ma expérience avec Samsung lenn tel naa pas comprendre portable Samsung tant que téewoo ko mënoo apprécier design jamais en photo en réalité tu nga ko mën apprécier donc design tant que tu es, ma ko du pas leen ci mën a wax lu et design les goûts et les couleurs ne se disputent pas peut-être mën na ma neex peut-être mën na ma neex na ma neex trop te du leen neex du tout Samsung lenn leer na ma designé neen portable bi ni nga xamante ni doo ko téye di demander ndax appareil photo bi il est capable ou pas parce que Samsung ren nuitographie la génnee loolu daañ ci dugg bu baax gëm naa ni dinañ def benn vidéo de nuit spécial mais même bolen leen ak Samsung Galaxy S21 bolen leen sama dernière vidéo bi mo dougal ak célébration Coupe d'Afrique bi vidéo yu leer nañ amul ben lumière buñ ci yok ay endroit yo xamanteni éclairage nada et il a fait des vidéos yo xamanteni franchement machallah allah daañu jéem a def ba mën a am en bi surtout avec wa Samsung pour mën tester yooyu yëpp wan lañ ko defal len ben vidéo test incha donc Abonnez-vous pour pour pas a rater vidéo bob. mais Avec SPN bu niveau productivité tu es bien et même espen il est plus rapide que espen bi nga si Note 20 Ultra bi nga déjà euh, latence bi dañ ko ba 9 millisecondes mais cette fois-ci c'est 2,8 millisecondes dañ ko wañi trois fois moins donc juste pour vous

xam nga ay portable am jant bi du ko wàññi moo tax mu yokk luminosité wu téléphone bi en mode extérieur genre bu nekkee si biti ba naaj bi tapé ci luminosité bi nu muy leeree naaj bi sax bu si tàppee du wàññi leeraay bi Samsung loolu moo nekk seen intention ren juste pour wan leen loolu noonu c'est tu défies le soleil toi hein écran bi yaatu na écran bi leer na intérieur comme extérieur et l'écran écran il est très fluide parce que écran 120 Hz mais mais taux de rafraîchissement adaptatif mais bii du dem 10 Hz bi 1 Hz donc je vais économiser batterie moom moo économiser même si je ni économiser mi batterie bu 5000 mAh comme daw mais Samsung nan la mënee dugal portable bo xamanteni batterie 5000 mAh ba pare mu bëgg portable bi dugal ci stélé Mais man Samsung quand il fait ça tu te dis comment il fait parce que Samsung Série, ils sont trop forts niveau niveau niveau genre intégration de produits le fait que portable bi faire am charge sans fil ba faire des charges charge sans fil inversement portable bi utiliser comme power bank bëgg naa wax lu si Samsung Galaxy S22 bi mais il y ni damay denc lépp euh, ba vidéo bi ma ciy def sûrement euh, semaine bi la semaine prochaine dinaa def de vidéo et espérons que ni fait les ma am ay prises yoo xamante ni man maa jël sama chez Samsung mais franchement bëgg naa euh, bien une vidéo spéciale pour moi parce que bu je waxee lu bëri le Samsung Galaxy S22 Ultra bi dafay gën vous guddal vidéo bi te daanaka commencé gu C'est wax gu dara côté stockage bu vous le Samsung Galaxy S22 ou Samsung Galaxy S22 plus ñoom ñaar ñëpp version de base de 128 giga am aussi version de 256 giga de stockage mais bu vous le Samsung Galaxy euh, S22 Ultra bi la version 256 Go, à commencé 512 Go et am version bu 1000 Go. et yoy non pour bu Samsung Galaxy S22 bu ndaw bi la RAM 8 Go S22 Plus RAM 12 Go S22 Ultra RAM 12 Go RAM 16 Go si signal portable yëpp ñu ngi si am dernier processeur Samsung le processeur Exynos 2200 bu mu nekk Samsung Galaxy S22 S22 Plus S22 Ultra mais itam bu des ni yow da nga États-Unis am version bi nga version Snapdragon le 8 Gen 1 une version Snapdragon ñun Exynos parce que Afrique la mais Exynos il est super bien man moom am am sax que Snapdragon 8 Gen même fait que Snapdragon 8 il est bien mais man franchement euh, euh, partenariat Samsung avec euh, AMD man moi ma gën parce que Samsung si S22 n'est n'est juste un simple smartphone mais c'est un smartphone gamer et franchement c'est un vrai smartphone gamer peu importe S21 boo parce que nous avons la am même puissance pour dites ay 8 go de RAM 12 go de RAM non non Processeur, c'est exactement la même chose Les gars yi dama bëggoon ñu wax ci tablette du tablettes yi nga Samsung présente. une ko tey Tab S8 Tab S8 Plus ak Tab S8 Ultra la première fois c'est gamme Tab S Samsung Indy Ultra et loolu non Samsung bu ko defee xam nga ni euh amna lutax mais franchement si Samsung Galaxy Tabi, euh luñ ci mën wax euh, bëriwul. peut-être bu laajee bu jaré ma def vidéo bo xamanteni c'est spécialement pour tablette di surtout Tab S8 Ultra bi wax len mako ci commentaire yi et itam commenter len ci biir vidéo bi bu len dem ci WhatsApp di ma envoyer message mais commenter len bu fekkee ni mën ngeen commenter ci biir vidéo bi franchement euh, dafa am Tab S8 mi nga am écran bu 11 pouces ils sont très slim très puissants même processeur que yi Samsung Galaxy S22 ils si nekk ba pare ñoom dañu ils dañu à part dañ la koy boîte D'accord lay euh, S8 plus mon écran bu 12,4 pouces de dafa yaatu franchement 12,4 pouces moo gën a ngande sama écran ordinateur mais tap S8 Ultra sama gars yi xam écran bi ñaata la 14,6 pouces c'est 15 pouces. Samsung lutax lutax parce que ba pare dafa le juste ay écran yo xamanteni non noonu la demee de même écran yi nga xamanteni ni moom lañu am ci S21 ultra yi moom la ci am même même technologie la si def ba pare écran bu ngandé am aussi ben cover cover bi ça me plaît beaucoup parce que cover bi euh, daf koy jox ben stylu surface et euh, pourquoi pas mën que c'est une futur PC surtout avec Samsung Dex mais il permettre d'utiliser l'application euh, application et en version ordi euh, c'est vraiment intéressant le tap S8 Plus b mais il est trop grand et il y deux caméras deux caméras yo xamante ni grand angle benn ultra grand angle et aussi dafa am technologie bu auto frame de les recadrer peu importe bu fekké ni dafa am keneen ku ñëw automatiquement moom moo koy dugal ci biir cadre bi surtout pour les appels vidéo parce que ñun xam nañ actuellement dañ tollu période bi nga xamante ni euh, appel vidéo c'est très très important. donc euh, sama gars yi euh, yaakaar naa ni def naa tuuru Samsung Unpack bi bu nekk dinaa ci def vidéo am incha allah maa leen ko promettre donc pour bañ a rater vidéo yooyu dama lay wax juste nga abonné wu itam nga bës ci cloche de notification pour bañ a rater vidéo yi di wàññi ñëw waxuma la nga bës fii bësal si euh, kii bi lu mu tuddati <laughs> bouton bu rouge bu mel ne moom bi moom ngay bës d'accord comme ça bu ko defee nga abonné wu et bu ko defee nga bañ a raté sama vidéo yi di wàññi ñëw et fileeg boobu du ma def leen lu dul di leen di jox dig daje si samay prochaine vidéo incha allah. bojo bojo yee kaay leen seetaan coupe na. booy bul fay lamp yi sax peace peace. donc sama gars bu fekkee ni da ngeen bëgg benn si portable yi nga xam ni wax naa ko ci biir vidéo bi muy Samsung Galaxy S22 plus S22 Ultra même yi ba si Tab s Ultra bi mën nga ko commander si sama boutique rayon high tech si numéro bii di 77 710 64 64 peut-être dina disponible avant mois de mars